Internet de la 7TV c'est encore un plaisir de vous retrouver dans votre émission avocat le droit à votre service émission bi nga xam ne traiter les questions juridiques les cas juridiques mais aussi l'actualité de manière générale tey sax dañuy ñëwaat un peu sur l'actualité mais tamit ñëw ci benn aspect muy l'état de la démocratie au Sénégal maanaam xool fan la démocratie toll ci Sénégal parce que nag vraiment nit ñi ñu ngi koy nit ñi donc c'est benn débat benn questionnement boo xam ne ñu ngi koy questionné wu fii au Sénégal donc autant de questions yoo xam ne tey bëgg nañ ko waxtaanee fii ci Sénégal ak sunu invité nekk Denis Ndour nekk vice-président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme moom la ñu dalal bëgg waxtaan ak moom un peu sur l'état de la démocratie au Sénégal mais ci benn point bu solo muy li nga xam ne mooy le respect des droits et libertés fondamentaux waaw jërëjëf euh, di rafetlu ak euh, seen ñëw ci Ligue sénégalaise des droits humains yëngu ci àq ak yelleefu doomu aadama ba tax na lépp lu xew ci réew mi te nga xam ne dafay nasaxal euh, li ñuy wax worma nit dignité humaine euh, ñun dañ ciy taxaw wax ci dox ci jëf ci ah li xew nag te yàggul lool ci mm-hmm. dee ñu yéeg dañuy ne dañuy jaale ndax génne nañu sax communiqué conjoint ak suñu yeneen naataangoo yi yëngu ci ak ak doomu adama ci suba. pour wax na ñu ngi ñaawlu li xew. waaye ñu ngi jaale aussi njaboot yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seeni doom ak seeni i sët wala lu mu mënti doon ci seen i mbokk. Euh, dama ne doomu aadama nag dafa sacré te loolu dañ ko firndeel ci si suñu euh, loi bi gën a am solo ñu koy wax ndeyu sartu réew mi di constitution bi. mais nit dafa sacré ba tax na benn doomu aadama rek benn sénégalais rek bu ñàkkee bakkanam Sénégal yëpp la war a jaale euh, loolu nag dañu commencé gis ne dafa mel ni Sénégal dafay wane beneen xar kanam bu bokkul ak ba ñu xamoon ci moom ci mbirum état de droit ak démocratie euh, damay faral di wax ne ah euh, du lu ñu yelwaan ci biti de ndaxte ñun Afrique dañoo xamoon lan mooy démocratie ak état de droit depuis le treizième siècle avec le la charte de Mandé donc du lu bees du loo xam ne dañ ko walyaan ci biti waaye démocratie diñ koy xoolee di ko xaymaa ci jamono yu ñu toll sur le plan géostratégique géopolitique dañu jàpp ne mooy euh, loi kenn newul ci kawam maanaam ñëpp ñëpp ñëpp ñoo yem ci kanamu nguur ci kanamu loi nga nekk président nga nekk ministre nga nekk homme de tenue nga nekk en citoyen simple civil lambda yow aussi loi bi yéen ñëpp yéen a ci bokk yëpp waaye dañu gis ne euh, maanaam boom nit Sénégal dafa commencé nekk loo xam ne nit ñi sax dañ koy xaw a tàmm ba fu ñu waxee manifester rek ñu ne boom euh, bu njëkk nag dañ daan dégg ñoo xamante ne peut door nañ leen jàpp leen yóbbu leen après bàyyiwaat leen mu léegi dégg kenn déggatul loolu léegi li ñuy dégg mooy tiire nañu am nañu ci faatu loolu nag ah damay wax sénégalais ñu def taxaw seetlu te aussi ñu xoolaat suñu bopp parce que bu ñu demee ba banaliser loolu non seulement day tax ba ñun dootuñu am yëg-yëg ci mbirum compassion waaye day dem ba tax na ay njombe yu doy waar su amee sax duñ ci bàyyi xel wala boog nañ ko waroon faje duñ ko fajee noonu. ko fajee noonu kii bi sax prétexte bi c'est l'affaire Xosanto bi ngay wax un peu parce que démb gis nañ ne vraiment am na benn affrontement boo am entre li nga mooy la population ak les forces ñu am ci deux morts ak plusieurs plusieurs blessés. bavure policière yi c'est pas mu fi mu fi am nan lañ ko mën a jàngatee est-ce que une régression de la démocratie fii au Sénégal parce que boobu ba tey dafay am mais du ñu gis ne vraiment am na benn avancée par rapport ak ça. waaw mun nañ jàpp ne pour man démocratie moo dellu ginnaaw. Mhm. Euh, xëy na nag dina am ñoo xamante nañ ne lii nga wax nii débat la parce que am na ñoo xam ne duñ ci d'accord ñu nangul leen ko waaye ñun dañuy yëngu ci àq keeleefu doomu aadama souvent ay fait la jiital maanaam loo xam ne dañ ciy duut baaraam munoo wax ne lii amul parce que preuve yaa ngi nii weng ñu koy mën a gis loolu moo tax ñu jàpp ne bu ñu xayma démocratie. Euh, ñu bëri dañuy jàpp ne démocratie mooy am ngay rajo yu bëri am ngay télé yu bëri am ngay journaux presse écrite yu bëri euh, élection bu jotee aussi nit ñi dañuy dem élection dem delluwaat seen kër loolu mooy démocratie pour ñenn ñi day fàttali ne loolu ay pàcc la ci démocratie waaye démocratie dëgg mooy nga jël yooyu boole ci nag li ñuy wax le respect des libertés le respect de la dignité humaine maanaam nit sañ-sañ bu mu am pour woor wormaam da nga ko war a sargal euh, tey boo gisee homme de tenue buy arrêté nit di ko taxawloo wala bu ko laaj da gis sax ni mu koy defee day jéggi daayo da koy gëdd wala mu saaga ko wala mu am benn comportement bu violent euh, ba tax na kooku day dem ba dootul sax gisati respect bu mu war a jox tenue bu mu sol ndax ni mu ñëwee ci moom et booy wax ne loolu ñu ko fi tàmm gis loolu la ñuy wax impunité impunité mooy euh, maanaam diw def na waxuñu ko dara mais diw bu defee jàpp ko tëj ko ci kaso bi donc loolu nag day ñaawal suñuy démocratie parce que day gàkkal ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi ci seen liggéey waaye aussi day gàkkal mbirum justice te xam nañ ne dëkk banqaas yi ci gën a am solo justice bokk na ci parce que justice bu amulee koom sax munul am parce que ñi andi pour développer seen koom dañuy jàpp ne ah foofu de yoon am na fa suñ ma tooñee dinaa xam fan laay dem te jàpp naa ne comme yoon am na fa sax xam naa ne duñu ma sañee def nangam ak nangam waaye boo demee ba jàpp ne yoon bii dafa am ñu fi nekkal ñu fi nekkalul bu boobaa jafe-jafe. am na jafe-jafe si seen communiqué bi nga xam ne da ngeen ko ànd ak yeneen ONG yi nga xam ne da ngeen di xeex ak ak yelleef doomu aadama yéen a ngi demande une enquête transparente impartiale. Mm. mais enquête boobu noonu ba ngeen ko yàggee demandé c' est la première fois. Mm. et ba tey mënuñoo gis benn enquête boo xam ne gis nañ ci di retombées maanaam ñu ne ñi ñoo responsable yi donc jàpp nañ leen tëj nañ leen parce que comme ni ma ko waxee sànq donc les gens nga xam ne moo fi am manifestation. yi nga xam ne atteinte aux droits et libertés individuelles yi nga xam ne dénombré nañ ko ci manifestation yoo xam ne amoon na fi précédemment ba tey amuñu vraiment li nga xam ne mooy une enquête mais aussi mu am un procès ñu am jugement ñu xam ne ñi ñoo responsable est-ce que jàpp ngeen ne demande bi ngeen def ce sera encore benn demande xam ne def plus la rek te du li nga xam ne mooy suite waaw nit ki moom da ngay rafet njort rek saa boo laajee dara hmm. nga am yaakaar ne xëñ na nguur gi dinañ xoolaat seen bopp ba andi ci ay saafara boo déggee ñuy wax euh, enquête indépendante commission indépendante loolu yëpp day firndeel rek ne amuñ ko ñu bëgg a làq amuñu koo xamante ne kenn bëggul kenn laal ko euh, bu ñuy xoolee situation responsabilité toujours dafay am kiy joxe ordre te du ñu bëgg yegg ba ka joxe ordre te loolu nag mooy tax ba ñuy développer li ñuy wax l'impunité euh, may fàttali nii fàttewuñu étudiants yi ñu fi boomoon ku ci mel ni Fallou Sène maître Assane Dioma Ndiaye doon ko défendre mais souvent day nekk ay dossiers yoo xamante ne day dossier dossier tagga témbe maanaam dañuy enclenché procédure pour dalal sa xel jàpp ne mbir yaa ngi dem waaye du dem fenn fa mu toog lay toog te aussi dañuy wax en en terme de criminalité aussi su fekkente ne indice yi nga war a soxla boo ci farluwul bu yàggee da lay réer donc am na yoo xamante warta yàgg yenn yàgg yi dëgg la dañuy naan wéy la justice en son temps mais gis nañ justice saa yu bëggee accélérer mbiram da koy accélérer ñëpp di ci teg bët. Hmm, de priorité la su bëggee euh, yéexal mu yéexal waaye jàpp naa ne loo xamante ne askan wi la soxal dañ ko war a gaawal pour gindi askan wi ci loolu parce que loolu la ñuy wax le droit à l'information maanaam askan wi dañu am sañ-sañ xam. Euh, du caa nag lépp nga koy xamal parce que xëy am na yoo xam ne ay secret d'état yoo xam ne. mën na compromettre suñu position géostratégique ak ñi ñu wër ndax ñu xamal ñu loo xamante ne mën na doon suñu faiblesse waaye am na loo xamante ne askan wi dañ ko war a xam te yu demee nii tant que duñ ko xam day gën di wëy loolu nag moo tax ñun ne ñun dañuy insister ci vole boobu pour que ñu am ay enquêtes indépendantes transparentes mais mu nekk vraiment composé de personnalités yoo xamante ne Euh, amuñu lu ñu leen di reprocher xam nañ ne faruñu fenn. Mhm. parce que li leen tax a jóg rek moo dëgg. lu waral loolu xanaa da ngeen amatul confiance à la justice sénégalaise parce que léegi-léegi si say wax yaa ngi naan la justice bu bëggee accélérer dossier da koy accélérer bu bëggul accélérer da koy du ko accélérer donc loolu dafay jàpp de la justice elle elle est instrumentalisée wala yéen da ngeen amul confiance ci justice moo tax ngeen bëgg mu nekk une commission indépendante boo xam ne dafay composé des personnes yoo xam ne amuñu ay rapport avec la justice. waaw c' est mbir mi du question de confiance kese sax mais question d' équité la euh, ak ak de transparence pourquoi uh-huh. parce que su fekkente ne yow ki ngay jox mbir mi am na ñuy dute ci moom wala am lu ñu koy laam-laame mais nga jox ko koo xamante ne du ñu dute ci moom bu boobaa yow dootuñu am lu ñu la reproché ci sa résultat de li nga war a andi donc loolu dafa am solo euh, justice. boo xoolaat ci jamono yu ñuy wees en tout cas depuis 2014 ba léegi da ngay seetlu ne avocats yi euh, magistrats yi seen bopp ñooy jooy sax seen indépendance donc sax pose énormément problème ba ñu gis ay magistrats yuy démissionné loolu sax pose problème donc crédibilité justice mun naa ne sooxee na Sénégal te ñun def nañ ci ay lël yoo xamante ne avec les magistrats ñu toog waxtaan ci ne am na loo xam ne nañ ko xoolaat parce que bu ñuy wax indépendance souvent nit ñi dañuy jàpp rek indépendance su nit ki waaye am na lu ñuy duppe indépendance institutionnelle. c'est vrai maanaam ça veut dire que tey ministre de la justice am na ndogal bu mu mën a jël euh, jox ko procureur mu exécuter ko te loolu yoon moo ko ko may. xam nga yu demee noonu aussi ministre de la justice kan moo koy tabb mais ci pouvoir discrétionnaire président de la république la parce que premier ministre bu tànnee ay da koy ñëw woon président de la république. su ko nee ministre bi nga tànn kii munumaa liggéey moom da koy dindi donc ñu jàpp ne donc euh, cause à effet boobu lu ñu war a mën a xoolaat la pour que justice kenn du ko xoolee juste su am nañ confiance ñàkk nañ confiance loolu moom askanu Sénégal ci boppam ñoom ñuy tiiral seen bopp conclusion yooyu mais ñun lu ñu lu ñu nar ak li ñu war mooy attirer attention état ci lépp lu muy def mu def ko en toute transparence ba kenn du wax dafa féete nii wala dafa féete na loolu mooy léegi xam ne moom ngeen di dox mais aussi sànq yaa ngi koy yaa léegi léegi ci justice bi cest dire bu ñu bëggee wax démocratie lépp dafa reposer sur la justice parce que lu mel ni respect des droits et libertés fondamentaux mm. justice moo koy garantir yeneen ak yeneen ak yeneen justice moo koy garantir bu ñu demee ba Sénégal ñi amatuñu confiance à la justice est-ce que mën ñoo jàpp ne vraiment démocratie bi mën nañ ko tegee ne waaw du ma ne saa se conserve et on essaie d'améliorer maanaam dañuy xayma lépp lu ñu joto am dund ko ci mbirum démocratie muy lu baax dañ ko war a jàpp sàmm ko ba kenn du ko salfaañe waaye ñu jéem a def ay jéego pour yokk loolu loolu moo tax ñun ñuy sonn chaque fois bu ñu nee ah démocratie bi xaw nañ ko salfaañe ñenn ñi jàpp ne démocratie am na loolu li koy waral mooy ni ñuy xaymaa démocratie parce que am ñoo xam ne xayma démocratie mooy am nañu rajo yu bëri am nañ télé yu bëri am nañ presse écrite bu bëri am nañu aussi euh, des un calendrier électoral boo xam ne dañuy def ay élections donc jàpp nañ ne loolu fu mu am rek mooy démocratie mais loolu ay pàcc la ci biir démocratie démocratie mooy loolu mu nga yokk ci état de droit état de droit mooy état si boppam sax nguur bu defulee yoon dañ koy topp si yoon tey boo demee États-Unis c'est très souvent nga dégg am gën a sous de gouvernement I'm gonna a the government ça signifie que euh, nguur am na lu mu def loo xam ne jaaduwul dama koy topp ci yoon c'est rare et pourtant fii du ñu accuser sax mais dañuy teg ay critique objective maanaam pour xamal état ne ah lii kat baaxul jëmeen ko jubbanti ngeen defee ko nii wala ngeen defee ko nele te loolu day tax aussi ñoom ci seeni façon de gouverner ñu mën di améliorer seeni performance parce que dañuy jël en considération les critiques objectives yi ñu leen di defal defaluñ ko kenn ñu ñëpp la parce que état c'est nous et donc état bi su fekkente ne dañ koy jox ay critiques objectives mu koy jëfee pour man jàmm rek laa ci gis ak njëriñ waaye bu ñu buggee jàpp ne non kii daf ma contre wala daf ma yàqal day tax euh, population yi dañ may mere wala day tax ma ñàkk sama nguur pour man ils n'ont pas compris voilà donc attitude boobu la ñu war a am dañu war a jàpp li ñuy wax di ko di ko di ko bamtu du ko def ay communiqué de presse di ko wax ci médias yi c'est parce que dañu bëgg l'amélioration de la vie des conditions des Sénégalais maanaam seen i dundin nekk dindim bu sell bu ees bu boo xamante ne nit ñi dañuy gis seen bopp ci ressources yi ñu bokk parce que bokk na ci le plus souvent dëkk yi nga xam ne dañu am ressource minière moom ay conflits mais le plus souvent conflit de terre la le plus souvent Euh, non-respect à la responsabilité sociétale de l'entreprise mooy indi lu nu mel parce que état moom warul jàpp rek ne tant que entreprise ñu ngi may fay samay taxes maa ngi feesal sama poche. li ci des sama yoon newu ci. warul demee noonu dañoo war a jàpp ne ah même bu fekkee ne ñu ngi lay fayee taxe yow jàppal taxe yi ngay li ñu lay fay dafa war a delluwaat ci askan wi mais bu fekkee li am na xam ne mën a dem directement askan wi loolu moo ëpp solo lii mën a dem directement askan wi nag mooy. fexe ba dëkk yooyu nga xam ne fa la ñuy exploiter des ressources minière ay milliards di leen romb uh-huh. au moins ñoom ñu benn benn décence dans la vie maanaam le strict minimum eau potable am euh, ndox bu sell am électricité euh, am courant euh, ba pare ñu leen ko defal ci anam bu yomb ndaxte compensation bi mooy subvention bi ñuy def par rapport ak xaalis bi ñuy jëlee ci li nga xam ne mooy ressources naturelles yooyu nga xam ne mu ngi jógee ci seen ci seeni terre soo xool sax l'affaire Khossanto boo xoolee soubassement bi véritablement c'est la pauvreté bi nga xam ne la population mi nga xam ne mi ngi nekk foofu kon mën nañ jàpp ni actuellement au Sénégal boo xoolee configuration au Sénégal fii am mm. ressource naturelle bëri donc l'affaire Khossanto mën na nekk benn point rek donc fii ak suba ak beneen jour mën nañ trouver waat d'autres problèmes yoo xam ne dafay jóge waat ci yeneen côté yoo xam ne dafay jóge Euh, ci waa société civile ñu waroon waxtaanee mbirum gaz beeg pétrole bi naka lañ ko war a jëfandikoo ba nit ñi gis seen bopp euh, mais waxtaan bi dañ doon am ñu doon ne nañu def benn commission boo xamante ne day xayma li ñu jot ci mbirum bénéfice naka lañ koy séddalee yenn ministères yi nga xam ne dañoo sooxe ci seen liggéey mais man gisewu moo noonu dama leen ne bu fekkee dañu bëgg pétrole ak gaz lu mu jur askan bi yëpp gis seen bopp dafa am pour man ñetti ponk décision yu ñu war a jël yu am solo mooy kenn du fayati courant Sénégal kenn du fayati ndox Sénégal ba pare kenn du fayati analyse à l'hôpital boo demee hôpital di nga fay sa ticket pour nga ne da ngay faju maanaam sa consultation lii médicament lii analyse lii scanner lii yooyu yëpp état moo koy jël en charge fu mu koy jëlee ci xaalisu pétrole ak gaz bu boobaa ñëpp ci gis seen bopp bu ñu nee aussi doo fay courant doo fay ndox ne veut pas dire que monsieur Ndour comme du fay courant du fay ndox léegi day yàq courant bi déedéet xam mu monsieur Ndour lu mu daan tàmm fay weer bu bu jot bis bu dépassé la mu daan fay weer bu jot loolu mu dépassé moom moo koy fay ci poosam waaye la mu daan fay loolu nguur moo ko koy fayal parce que mu ngi ko jëlee ci xaalisu pétrole ak gaz loolu nag bu ñu koy def ci gox yi nga xam ne dafa am ressource euh, minière naturelle jàpp naa ne ñoom dinañ gis seen bopp dañuy gis sax même pour tali day doon jafe-jafe ci ci gox yooyu. alors que richesse bi fa nekk. alors que richesse bi fa ñu fay génne li li aberra li merlo mooy la fay génn ci alal te du jaar ci kenn du ñoom duñ ci gis dara donc loolu c'est une forme d'injustice populaire et euh, xëy na nag euh, li koy régler du rek manifestation jàmmarloo ñu xeex ñi ñu boom leen après ñu démarrer seen kër toogaat déedéet. dafa war beneen gis-gis ci li ñuy wax une gestion de la politique publique à, euh, à travers l'équité et la justice maanaam tey bu ñuy ma naka la ñuy war a jëfandikoo loo xamante état moo koy dogal ci biir askan wi dañ ko war a toogee penco ko pour que ñëpp gis ci seen bopp mooy na équité du ñii la ñuy faral jox ñi chef de village bi am chef de village bi amul wala ñu tànn chef de village boo xam ne dafa bokk ci parti ki bokkul ci parti ñu teg ko fële dafa war am équité te loolu tant que mu ngi am rek jàpp naa ne ñu ngi respecté euh, ak ak yelleefu doomu aadama ci mbirum liberté. parce que liberté aussi. ndey euh, charte réew mi moo ko garantir askan wi waaye dañ koy def de façon encadrée maanaam tey su ma nee sama liberté mooy ma def li ma neex ndax naa suma bopp naa def li ma neex waaye ma teg ko ci kaw yoon. surtout loolu maanaam du ma violer li nga xam ne yoon daf ko tere li nga xam ne c'est le bien privé wala public. amuma droit saccager ko yàq ko parce que loolu bokkul ci sama expression de liberté te pourtant war naa mun a taxaw ci buntu palais de la république takk sama morceau bu xaw tëdd ci kaw trottoir bi ñu bàyyi ma foofu ma wax sama message bu ma paree ma dem sama yoon waaye tey loolu munoo ko am boo ko naroon def du sax deux secondes ñu ñëw jàppalu boom lu yóbbu. surtout ci manifestation yi je pense que yaa ngi def un peu la la transition ci manifestation parce que gis nañ tamit manifestation problème la fii ci Sénégal muy benn droit liberté la vraiment boo xam ne war nañ ko mën a mën a ñogal mais dañoo gis ne Sénégal donc pour manifester c'est tout à fait un problème donc loolu tamit dafay andiwaat beneen problème sur la sur la sur démembrement avec l'autorité administrative euh, xayma ne euh, dafa bëgg a éviter li ñuy wax trouble à l'ordre public waaye li ñuy fàtte wax aussi mooy que ne su nekkee da nga xayma ne trouble à l'ordre public war na mën a am war nga mun a xam ban daayaloo war a mun a am soo munee xam ban daayaloo war a mun a am nga ne ban réponse laa ci andi ba daayo boobu mun a am ma fànq ko ba du am mais doo nekk ci dans une position que dafa war a am kon nag kenn du manifester. parce que trouble à l'ordre public ñu koy wax c'est un fourre boo xam ne. voilà l'administration daf koy saa ko saa yu ko soxlawee rek. voilà ko pour. man bañ ma mu utiliser ko mais na ko utiliser ba pare andi une réponse maanaam doo ni trouble à l'ordre public da war war na mën a am kon nag manifester du am da nga naan trouble à public war na mën a am xaaral ma jël ay matukaay ba nga xamante ne du am matukaay boobu mooy lan. parce que trouble à l'ordre mun na am te fekk manifestation amul. donc loolu bu fekkente ne loolu day am ñoom dañuy jël seen matukaay parce que am nañ ay renseignements généraux xam nañ lu bëri loo xam ne nit ñi xamuñu ko donc comme ñoom am nañ information boobu war nañ mu ne ah lii bu naree jur lii xëy na daayo bii lay toll daayo boobu nag pour fànq ko il nous faut mobiliser autant de voitures autant de gendarmes autant de policier et cetera pour donner une réponse man foofu lay xaar. l'autorité administrative au lieu de servir tout le temps euh, mënul nekk parce que y a trouble à l'ordre public oui y a trouble à public mais loolu yow yaa war a fexe noo koy fànqee ba du am. il faut plus de sérieux ci li nga xam ne mooy motivation bi c'est-à-dire wax trouble à l'ordre public rek dafa dafa yomb donc il faudra plus de sérieux ñu jox ñu ay éléments yu leer yoo xam ne moom mooy tax ñoom ñu focaliser wu sur trouble à l'ordre public. absolument parce que population parce que li ngay wax moom ngay tàmm di wax bés bu nekk ñoom dañu jàpp ne bañ la waaye su fekkee da nga ko motiver nga ne boo gisee mu mobiliser temps de de voilà de policiers ou de gendarmes pour telle ou telle manifestation c'est parce que séntu woon naa ne lii ak lii mën naa am bu baax population la ne ah lii kay moo taxoon ñii ne lii ñu toxal ko bañ ko def bés sàngam ñu ko def bés sàngam wala ñu bañ ko def bërëb sàngam toxal ko defal ko bërëb sàngam loolu mooy yaa ngi wax nit ñi ne décision bi nga jël motiver nga ko te yaa ngi koy justifier pour askan wi mën ci gis seen bopp mais bu dul loolu saa bu la neexee rek bu ñu laajee nga ne trouble à l'ordre nit ñi du ñu jàpp loolu dañuy jàpp bañ la dangaa bañ te boo bañee conclusion mooy égal da ngaa euh, refuser l'exercice de liberté boo refuser l'exercice de liberté yaa ngi xoos démocratie boo refuser l'exercice de liberté. yaa ngi xoos ndeyu charte mi nga xam ne mooy constitution bi te moo ñu ëmb ñun ñëpp. dafa beneen problème boo xam tam dañ koy dañ ko ci wax c'est-à-dire Sénégal itam dañoo bëgg trop de liberté alors que tamit vraiment trop de liberté tue la liberté donc boo tax des fois aussi dañuy comprendre pourquoi l'État di di di gérer aussi di les les problèmes mais les Sénégalais n'arrivent pas à comprendre comme ni nga ko waxee faudra aussi ñu préciser aussi le terme de liberté que nit dañoo foog ne liberté mooy <laughs> lu la neex alors que wala wax lu la waaw loolu nag dañ koy faram di fàttali ah man damay wax toujours ne nit ki saa booy réclamer ses droits defal sa devoir ba pare. d'abord est-ce que yow sa devoir def nga ko boo defulee sa devoir yow say réclamation de de droit dafay xaw a sooxe li tax muy sooxe mooy li la war defoo ko. donc li la war defoo ko dama jox exemple bu banal boo ma nee fii dañu war a def tout ba canalisation bi jaar yoon déboucher tout ça mais na la wóor ne waroo këpp mbalit. fa fa canalisation bi di jàll. yow defoo sa devoir de yaa fay këpp mbalit ba pare nga bëgg a kaas ne dañoo war a respecter sa droit pour ñu def canalisation ba sa kër du fees donc yooyu aussi foo ko que ñu koy fàttali citoyen yi c'est-à-dire bu ñu nee liberté mooy am nga sañ-sañu wax am nga sañ-sañu bind am nga sañ-sañu woy am nga sañ-sañu mandarga ci nitaal euh, dessin pour wax sa li nga ressentir waaye nga def ko ci euh, ci respect maanaam waroo saaga. waroo waroo xoqatal maanaam waroo wax waxu violence euh, bu boobaa yaa ngi def li nga bëgg maanaam yaa ngi exercer sa liberté te terewul euh, teg nga ko ci yoon te terewul euh, salfaañoo liberté keneen parce que tubaab sax da koy wax dafa ne ma liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre maanaam sa sañ-sañ fi muy jeexee mooy fi nga xam ne sañ-sañu keneen ki fa lay commencer fa lay dooree donc jàpp naa ne oh, loolu éducation à la citoyenneté la dañ leen koy fàttali waaye aussi di wax ne état yow mi yor nguur yow mi yor doole ji yow yaa war a fexe ba li nga xam ne gis nga ko mu bañ a am nga jël ay matukaay ba du am ba pare tout le temps laissant les les les citoyens exercer leur leur leur leur droit de liberté tey booy xool euh, dama koy joxe exemple ah allez regarder le rapport du secrétariat d'État des États-Unis en matière de droits humains yu may xam ne da kay xayma dëkk yëpp boo xool Sénégal chaque fois bu ñu ko xayma dañuy évoquer problème de liberté donc ça pose problème donc loolu mënul nekk loo xamante ne dañ koy inventé. c'est réalité bello nga dem jël ay publication euh, rapport euh, Ligue sénégalaise des droits humains rapport alternatif ou bien nga xool euh, rapport annuel international bu Amnesty International bu muy bu muy bu muy publier chaque année. nga dem ci dëkku Sénégal nga gisaat. ñuy ñuy souligner cet ah. aspect de. liberté de liberté donc ça pose problème donc bu ñu ko bëggee nëbbu ne yaa la démocratie ça veut dire qu'on est dans le déni. Ah. dans le déni mooy na am da ngay nëbb li am bugg ko nangu ma joxañ la ne la xoolal naaj baa ngi nii nga dem gisuma naaj bi baaraam bi nga may joxañ naaj bi boobu laa gis. xam nga loolu tam mënuma ci dara. parce que yow foofu nga bëgg a xool. li olof daan suul kër di ko di ko tere feeñ donc je pense que on va dañuy conclure ci l' affaire un peu l' affaire parce que def kenn ci benn communiqué. mais aussi je pense que li nga xam ne mooy l' idée c' est à dire c' une jeune bonne gestion des ressources naturelles moom benn partage boo xam ne équitable. entre les populations ak li nga xam ne mooy l'état ak ñi nga xam ne ñoo koy ñoo koy ëmb je pense que loolu mooy rapport bi nga xam ne moom ngeen di génne moom ngeen di donc on va conclure sur ça l'affaire Khossanto lan mooy suite bi par rapport à la waaw suite bi déjà population Khossanto dama leen di masawu coono di leen ñaan aussi ñu dem ak dal parce que des fois aussi mbir dal la nga xaw a jànnaxee parce que daf lay métti waaye lu mu lu métti métti métti rek nga dem ci ak dal dafay am solo Euh, dem ci am ak dal ba pare dem ci ak aussi euh, xel xel moo na am ñan ñoo ma war a mën a jàppale ba ci mbiru yoon dimbali ma ba li ma soxla ma mën ko jot donc jàpp naa ne tey war nañu mën a am euh, de groupe d'avocats constitué yoo xamante ne war nañ leen mën a déglu pour jàppale leen ci seeni jafe-jafe te loolu aussi warul yem rek ci santo yeneen dëkk yi nga xam ne dañu am problème ressource minière war nañu xoolaat en namu pour que ñu bañ a yegg ci yi nu mel parce que dafay gàkkal Sénégal parce que gis nga tey avec les réseaux sociaux lépp loo def à la minute. waaw c'est partout. yëpp yëg ko dañ lay woo de partout de Washington mais mais mais monsieur Ndour lan moo xew seen dëkk bi mais lii mooy lan man lii mais lii est-ce que Sénégal la je suis désolé mais c'est mais xar kanam bu ñuy woon la ñun nag ñun sénégalais ñoo war a bañ ñu ñuy waral xar boo xam ne ñun bëgguñu ko xamuñu ko. ñu li ñu xam mooy jàmm salaam euh, euh, non violence euh, démocratie boo xamante ne nag dañu am ay les pères de la nation yu ko xeex yu ko yu ko jëmmal ba ñu mën a si fi ñu yegg si ah ñu mel ni ay président Amadou Matar Mbow et les autres et donc mënuñu nag ñëw ba fii ak yooyu nga xam ne dañ ko am ba pare ñu bugg ci teg teg suñu tànk pour ne léegi dañu yootu leneen wala bëgg a ne way semblant démocratie am donc démocratie bu amee njëriñu ñëpp la du njëriñu nguur du njëriñu askan njëriñu ñëpp ñu yewoo biir Sénégal. merci beaucoup monsieur Ndour ñu ngi lay jaajëfal remercier la bu baax a baax a baax ci invitation bi mais aussi ci xam-xam bi nga xam ne moom nga wax donc ñu bàyyi la rek nga def benn dernier récap avant ñuy clôturer. waa di di leen gërëm di leen euh, di parce que dañuy jàpp souvent di wax di xalaat ne. tele yi rajo yi dañuy wax mbirum euh, politique politicienne ay werante ay fait faits divers euh, donc dama leen di encourager émission yu ni mel ngeen di ko faral di def mbirum njàng mbirum économie mbirum ak yelleef pour que nit ñi jàpp ne aussi li am solo mu ngi fi loolu dépendre na te ñi koy anime ak télé yi am benn euh, ligne directrice boo xamante ne day wane ne aussi nekk ñu fi rek pour wax leen njaaxum bi am na njaaxum bële am na waaye aussi pour les éduquer l'éducation à la citoyenneté passe par des émissions comme euh, la vôtre. te maa ngi leen ci félicité. merci beaucoup Denis Ndour comme ni ko gisee tey ñu nekkoon ak Denis Ndour nga xam ne mooy le vice président de la Ligue sénégalaise des droits tey moom la dalaloon bëgg waxtaan ak moom sur l' état de la démocratie au Sénégal donc wax nañ sur l' état de la démocratie au Sénégal wax nañ aussi si l' affaire Khossanto donc ñëwaat na ci ay aspects yu bëri bëri ci wàllum démocratie donc wax na ci gàkk wax na comment a ñoŋal li nga xam des colonnes bu Issa Pouy ak Amadou Ndakebe à la réalisation Khady Sarr moo nekk ci montage bi ñu ngi leen jox dig daje incha allah lundi prochain même heure même chaîne merci beaucoup